di leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen safoo di ñu seetaan ci Equivox TV mbokk ya nuyu nañ leen di am mbégte ak bànneex di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nee naa leen nii lay demee tout temps man ak Babacar dañ toog ci plateau li nga xam ne dafa yoo jógee ci làmb ji Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna am ci nekk. maa ngi sant yàlla. ay noos. waaw maa ngi sant yàlla foru baaga tey nag foru de. mooy loolu xam nga des fois moom da ngay ñëw rek nekk en forme des fois da nga nekk baisse de hmm. gisoo lool nañ daje mbëkkante gisoo lool gis naa <laughs> téléspectateur yi maa leen di bëgg ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom d'accord voilà cher téléspectateur bu baaxee rek ñu seet li nga xam ne moo di revue des titres daal di leen si waat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 22 février 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay yi suñu lamb la nay xëy tay dooreete ko mu mel ni ki yëglekaay bi di suñu lamb nag moom maanaam reprise su compétition maanaam daal retour wala boog ubbi waatul làmb ja tey ci la xëy ca ñëw di ca wax mu mel ni ki le premier mars ba nga xam ne nag moom la ñu wax loolu la xëy tey di laaj ndax condition yi dana daje ngir mbir ma mën a ne sunu làmb xëy tey wan ñu loolu ci xëtam mu njëkk wan ñu Eumeu Sène ak Lac de Guiers ak promoteur yi ak ka nga xam ne moom mooy Matar Ba ak Bira seen mu mel ni kii daal loolu tey mooy laaj bi daa mel ni kii nag mbir mooma daal loo ci mën a dégg daal huis clos ba moom fi mu ne nii daa mel ni mooy li ñu teg ngir ñu war koo mën a def mel ni ki nag promoteur yi ba tey ñoom huis clos booba xaar la nga xam ne daal moom mooy jàppale ba leen état war a jàppale daa mel ni ñu ngi koy xaar ak itam lu jëm ci mbirum waxtaan gi jëm ci wàllum fexe ba xool nes di def protocole sanitaire ba nes ca wara a waxtaane mel ni ki loolu tamit waras na caa wax ak leneen loo xam ne nii daal yëglikaay bi ñëw na ci ci wàllum huis clos ba waaye bu ñu demee fa nga xam ne moo di Kaolack moom daa mel ni wàllum huis clos ba moom ñooña bokkuñu ca ab gis-gis bu ñuy waxee nii ña ca des neneen la waxee ka nga xam ne nii moom moo di Ajjuma Juuf moom moo moo nekk ca Kaolack yore fa ay mbër daal moom jàpp na ne wàllum wiklo daal loo ci mën a dégg moom jaaf jàpp ne du pour lutte avec wala boog nekkul pour lamb ji nga xam ne àndul ak dóor lamb simple daal gis na ne wiklo moom arrangé wu ko Ibrahima ba nga xam ne tamit Ibrahima Kaytal moom tamit nekk fa nga xam ne moom moo di ca ndar gu ndaw jiite fa la ñuy wax ndar gu ndaw production moom tamit daal jàpp na ne pour ñoom ñu mën a def loolu wala boog wiklo ci ñoom nee na du yomb parce que daa jàpp ne ñoom amuñu sponsor tey suba waxi noppi kon ñoom bu ñu tëgg lamb lan cay xaar mooy ay parrain na bu loolu amul ñoom jàpp na ne pour ñu tëgg làmb moom day jafe lool Amadou Ba moom nekkoon ancien lutteur tamit ñëw na di ca wax moom la mu gis moom ne na xanaa kay bu ñu ko defee ñu wàññi nit ñi waaye kenn bañ a dugg moom dafa jàpp ne loola du luy mën a ne te du arranger làmb cuuc tamit daa mel ni gis-gisam soriwut lu mel ni ki noonu mel ni ki nag fi mu nekk nii moom coow li metti na trop ci làmb ji lu mel ni ki nag fa nga xam ne moom la gaa yi defoon ab rawtu di ca gàmbi façon yi ne tëgg moom daa mel ni fi mu nekk nii ginnaaw ba nga xamee ne nag dañu def nag wàllum tere lu jëm ci moom a yëglikaay bi ne daal lu dala dal wala lu méttee métti la ci ña nga xam ne commencé woon nañ di fa bàyyi xel ngir di fa organiser ku mel ni Jamaïque waroon na fa tëgg lamb ci mois de a a maanaam ci week-end bennu jëm ca la fas yéene organiser la nga xam ne moo di lambi simple ja xam xam ne moom la fay def di sargal rëg-rëg loolu yëglikaay ba moo xëy ñëw tey di wax lu mel ni keneen keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom moom sunu làmb muy bébé Saloum mi nga xam ne daal loo ci mën a dégg maanaam fi mu nekk nii daal ay mbiram doxatul ndax la ko taxawloo yëglikaay bi nag bokk na ci defet ba mu am ci rëg-rëg ak Franc yëglikaay bi ñëw na ci moom bébé Saloum ak neuf victoire am ak la nga xam ne moo di set defetam yi nga xam ne mooy palmarès am am na keneen koo xam ne nii moom loo ci mën a dégg ay mbiram mu ngay dox yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom ak ndamam yu mujj ya nga xam ne def na ko ak ñamu bëreel la mu leen won muy Ama Balde ka nga xam ne moo di Malick ñan yëg likaay bi daa jàpp ne ab dóorekat la woon ku ne jàppoon na ne maanaam ci wàllu lamb ko mu dajal daf lay duma waaye ba mu dajek ama keramam daa mel ni xiir ya moom lañ ko mujj a dóor ama da ko mujj a arrosé ñu ne déet ne waaye ama jóge fa dal di jël tafaatin ñu naan dina ca génnam du ca génn mu dal di koy ëldëb maanaam daal bett ko daan ko jël bu rëy rëy ñu foog ne ama ca la yem mu jëli papa sow moom i tamit ba mu ko jëlee yëg likaay bay wax de ne na caw sa xiir la fa génne sunu làmb xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni kon yëg bi daal ñëw na tey ci ki nga xam ne nii moom moo di ama balde ak taxawaayam ci làmb ji yëg li kaay bi nag boo xoolee nag palmarèsu Ama fi mu nekk nii mu ngi ci treize victoire ak la nga xam ne moo di deux défaites yëglikaay baa xëy ñëw tey wax nu ko waaye bu buñ fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ci Equivox TV foofa moom la fa nekk lenn la muy démb ndaje mu mag ma nga xam ne amoon na ci 2STV ka ko amaloon nag di Gaston Production ak mbër yi nga xam ne ñoom la tëgg moo xam bombar Bombardier Balla Gaye numéro 2 Lac de Guerre Eumeu Sène Diène Kairé Modou Anta démb daal gaa ya daje nañu ñoom ñëpp wax nañ nag ci seen combat ya nga xam ne moom la ñu war a bëre ku ne xam ne ne Gaston Mbengue la mu nar daal nee na 4 avril la bëgg tëgg ka nga xam ne moo di Lac ak seen Sène kay rek ak ka nga xam ne moom moo di Modou Anta mel ne ki nag démb loola waraloon ndaje ma wàllum vaccin ba tamit mbëree ñoom ne nañ pare nañu ngir nag pikiru vaccin wu bu vaccin bi duggee ci réew mi ndax jàpp nañ ne bu dee looloo fi mën a jëlee mbir mi moom nan ko defi waaye terewul nag nappante nañu ndax ku ci ne am na loo dig sa morom ndax Balla Gaye moom ku ne xam na ne wax nag ka nga xam ne moo di Bombardier tontu ko ginnaaw ba ko Bombardier ne balaa comprendre lamb ji daa jeex Balla tontu na ko démb ne na ko soo baree dama lay daan nga xeex ma daan la na la leer loolu ca micro équivox la ko Balla Gaye waxe jooju wax Eumeu seen tamit wax na fa ak moo du Anta wax fa Diène Kaïré wax fa mel ni kon daal foofu dem tuq su bën la woon saañ ba réer yëglikaay ba ñëw na ca wala boog équivox moo ca ñëw bu buñ fa jogee dañuy jeexal fa nga xam ne moo di ca record record moom la munu xëy indil lenn la maanaam MMA ba daal la jàpp ne la muy indi ci xaalis bari na yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci ak rëg-rëg mu nekki mbir la moo xam ne mën na indi ay milliards ko war a xëy ñëw tey toppal ñu loolu wax nu ko waaye am na loo xam ne moom dama leen koy wax kii nag moom dafa réer ay mbokkam di ko wër ñu koy wax Baye Bass Fall dëkk ca dëkk bu ñuy wax Ngeme yaay jama ca fa nga xam ne moo di commune altu ndàngal ma nekk ca bawal kon Baye Bass Fall moomu daal képp ku ko gis ñaari at a ngi mu réer ay mbokkam dimbali ci ay mbokkam ndax nag dani sama mbokk gomis ñu bokki dëkk bokki tool te olof ne ñu bokkam teen ñoo laxasoo ay goj te nag ku ne la ngay liggéey ca def lu baax nekkoon revue ci titres Babacar ñu daal di ñëw ak ñoom ci journal suñu làmb lañ xëyee rek seen xët bu njëkk mooy reprise compétition bi ci huis clos premier mars bi ndax condition yi daj nañ ñi xam ne nag ñoo di acteurs yi nekk ca Kaolack divis daal di diviser wu ci mbir mi daal. bokkuñu ci xalaat bokkuñu ci xalaat. waaw ndax conditions yi daje na pour le premier mars ah du ñu mën ne waaw du ñu mën ne déet parce que loolu li tax mooy hmm, boo xoolee am na koo xam ne mën nañ ne pare na pour tëgg. muy Gaston Mbengue am na ñoo xam ne est-ce que pare nañ yeneen promoteurs yi pour tëgg loolu tamit defe naa am na ñoo xam ne pare guñu pour tëgg kon est-ce que ñooñu parewul pour tëgg est a tax tëgg est-ce que taxaw na yaakaar naa loolu defe naa amagul si yaakaar naa mhm. yaa ngi dégg kon defe naa conditions yi xëy na am na terewul nag bu fekkente ne saison ubbi na ñi ko ubbi muy état du Sénégal mhm. parce que saison su ubbee rek ministère lay concerné mhm. ñëw ci CNC te ñun ñooy état yaa ngi dégg kon defe naa ñooñu koy def la tax ñu koy def pour man buñ ko defee danañ fexe conditions yi daje pour que promoteurs yi mën a tëgg parce que tamit am a dégg am na promoteurs ne na ñu mu jik am na ñu dul jik ne xëy na dana leen arrangé mais am na ñoo xam ne mënu leen a arrangé yaa ngi dégg mais comme nag suba nag si kàttanu yàlla dana ci diggante promoteur yeeg waa bi na la leer ci ñoom ñëpp waaye ñun daal li ñuy ñaan mooy na yàlla def promoteur yëpp mën a tëgg yàlla na condition yu daje ba ñu mën a tëgg parce que tamit ñoom ñëpp ku ci ne lu mu da nga yëkkati sa xaalis jox ko mbër te itam ku ne xam na ne loolu boo sañoon tey la nga joxe même woon kon suñu sañoon daal ñoom ñëpp dañuy tëgg parce que li tax mooy ñoom ñëpp lamb lañ fi nekkal te ku ci ne ca côté ba nga féete ami mhm. yaa ngay def la nga a mën a avancer kenn ko mën a doxal du ñaar ko mën a doxal yëf yi lépp ñëpp la kon ne ku ne nekk kon yàlla na yàlla def daal daal ba le premier mars boobu ñu wax bis bu lamb ji ubbee mhm. promoteur yëpp mën a gis seen bopp ba ku ci nekk la nga tëgg nga mën ko organiser nga mën ko organiser mu réussir quoi amiin ci promoteur doon xam dañoo war a gis seen bopp ci huis clos boobu mhm. buñ demee ci Gàmbi euh, xew-xew ya fa waroon am ci làmb ji xam nga ne fi mu nekk nii ñu ngi waaj a li nga xam ne moo di manifesta manifestation yooyu mu indi nag mu mën a indi lu métti ci promoteur yi ak ñi nga xam ne tamit ñoo di bërekat yi waaw lu métti parce que buñ ne lu métti mooy tey dañ daan gis promoteurs yi comme temps yi passé ñu ay lambi ba par daanam gàmbeek mhm. ba ku ne na bu yàggul jamaykee def na Europe face à face waroon fa tëgg lamb léegi xam ne ni ñu ngi ko doon préparé mais bon xëy na waa Gambie autorités yi dem nañ ba xalaat na ñoom ah li nga xam ne moom mooy mesures yi war a am ci coronavirus bi xëy na nit ñi duñ ko sàmm foofu mhm. moo tax ñoom tam ñu ne à partir de 8 mars ndaje dañ ko fay luy daje mbool loolu nag su amee man nañu dina métti parce que promoteur yu bëri ñu ngi fa doon dem bi fa organiser wu mhm. ah mais nag euh, comme li ñuy wax rek ah ñun nu ngi ñaan yàlla sax balaa ñu yegg foofu yëpp ñu réew mhm. mën a nekk ci conditions yi ñu soxla ba a tëgg suñuy làmb parce que waaw parce que neexee Sénégal dëgg dëgg yaa dégg xëy na bu demee ba di ko bay dem Gambie itam des fois mhm. parce que Gambie ak Sénégal dëkk la nga tëgg Gambie nga tëgg Sénégal day mel ni ci men réew mi nga nekk rek waaye ñu ngi ñaan yàlla daal corona bi jeex

waaye nag làmb comme li nga wax sànq rek ni da nga nekk ci forme des fois nga nekk ci baisse de moom yaakaar naa ne du danga ko daan ko xëy na kay làmb nag da di nit euh, dafa mën a am ci làmb te ñi ko daan itam ay xale yoo xam ne ku ñu mënta daan guddi yi amul muy franc muy rëg-rëg ñooñu ko mujj daan ndax ñooñu fi mu nekk nii ay tàmbali ay sàbbi lañ ci làmb de ñaari xale yu doy waar lañ tàmbali ay sàbbi ñooñu ñoo naqari affaire de tàmbalaay sàbbe loolu waxi loolu waxi tàmbalaay sàbbe bu la toppee du la gaaw a bàyyi <laughs> boobu moom jotaguma ci woon maa ngi doog a jot te buñ paree di ma ko faram fàcceel <laughs> Babacar <laughs> voilà bu ñu jógee foofu Babacar ñu dem seeti nga xam ne moo di Ama Baldé ci victoire yi nga xam ne am na ko rek ci kaw Malick Niang Tapha ak Papa Sow waaw ndam yooyu bokk na ci ndam yi gën a tax nit ñi xam ne kii nag bër waada la mhm. ñetti combat yooyu parce que bi muy jël Malick Niang ñëpp dañ ñëwoon day xaru ndax Malick Niang dafa am fu mu jaar ak mbokkam Sa dañu bëree mu dóor Sa mu wàcc mu yeggali ko mhm. ñu ne Ama pourquoi mu koy jël waru koo jël waru koo jël mhm. yaa ngi dégg Ama ne neen jox leen ma ñu jox ko Malick Niang defe naa kere ñoom ñaar Malick Niang ku ne xam na ko ci xeex mais ci xeex boobu la ko Ama fekk si yaa ngi dégg xeex ak moom mhm. ba dóor ko moom it mu wàcc na mu defoon Sa Thiès que mu wàcc mu fekk ko fa dóor ko ay ku ba bës ko te muy dëgg nit ñi nag nekkoon kii fit wi ñu doon wax si moom ndekete dëgg la mu jógee fa jël tafaati ñu ne ba at boobu tamit day xaru ci tournoi bu ñu bokkoon waaw ñu naan est dina ci génn dina ci génn mais gis nga mook tafaatin dafa daw rek tibb tànk bi dëj ko ñu ne déet na waay mook Papa Sow ñuy xalaat bëree Papa Sow ak yàggaayam ci làmb ak xam-xamam mhm. mais gis nga mook Papa Sow mhm. mooy ko fu mu yekk ak nakam arbitre daa soufflé rek mu marché ci kawam mhm. muy mbër moo xam ne combat yooyu wax dëgg yàlla ñetti mbër yooyu ku leen daan ci ci ci ci tegle leen kenn mënatu la wet di si yow mii mbër waa da nga loolu nag mu kondil tey résultat muy bëree ak le roi des arènes ndax olof a ko wax ami ku def dara am dara. am tey nag ay mots yu kawe nga ma indil yoo xam ne comprendre mu ko daal ay waada ak. <laughs> <laughs> Babacar baax que mooy lu mat mbër mu mat. Ah, waada mooy lu mat mbër mu Ama Baldé mbër waada la parce que loolu moo prouvé que mu ngi bëree mm-hmm. couronne mm-hmm. <laughs> te xale la ndam yi mu teg la ñetti ndam yi mm-hmm. loolu la ko jural la baawkat démb gis na ci dem seeti eh, mbër waaw foofu démb ñu nga fa parce que ñun moom comme ci làmb la ñuy dox di ci yëngutu yaakaar naa ne fépp fu mu xewee mhm. buñ sañoon dinañ fa teew mhm. yaa ngi mais ñu ci nuyu le promoteur mhm. muy Gaston Mbengue parce que suñu kilifa la suñu lépp la te bu loolu bu amee rek xëy na moom la ak itam staff ba koy liggéeyal mu ñoom Mbay Fall sama turandoo sama papa jooju moom tam maa ngi bu baax ba ak doomu Gaston Makan moom tam di suma waay ak staff ba yépp ñoom ñëpp ñëpp waa Gaston production yëpp parce que ah, ñoom ñoo ñu ci boole rek woo ñu ci ñu ñëw bokk ci euh, euh, tamit muy nëkk loo mbër yam fa dajale dem defe naa itam ci làmb kenn mënu du leen a laajte ndax ñetti roi des arènes nga ci woon ca biir mhm. yaa ngi dégg ak koo xam ne xëccoo na couronne roi des arènes yaa dégg wala bokk na ci ñu ko war di xëccoo kon defe naa Gaston Mbengue keremu làmb la tëgg mhm. yaakaar naa ñu ngi koy ñaanal daal loolu mu mébét yàlla na ko réussir mhm. parce tamit su ko réussir rek làmb da ciy gagné rek Sénégal da ciy gagné parce defe naa ne loolu ni réew mi namoon na ko dem ndaje yooyu jàkkaarloo yooyu comme li ma sama père Bekaay wax mbër mi làqu fii kii làqu fii xam nga <laughs> yooyu beneen affaire la wax na ko <laughs> dem dafa neex muy loo xam ne ni dem c'est des moments yoo xam ne ay moment fort la woon vraiment mbëri de de waaw décon waaw ñoom. seetaan naa ko nga gis nga sa bopp. waaw non parce que man daf may tamit ñëw def sañse yu rëy. waaw waaw waaw sañse Eumeu Sène ba moom a. waaw ah, <laughs> ma koy tooñ mu ma non a li nga sol moo rafet. dafa macha allah démb li sol dafa rafet. Mm-hmm. xam nga Eumeu moom naanaan la. Ah, moom koy tamit yaa ma gën a xam gars yi ci des ku ne waa génn seen ay costume yu am classe. xam nga Balla lan mm-hmm. Bombardier moom tamit ñëw def koppati yaa ma gën a xam ah Modou Anta ak kiyam jéen ak beere euh, beeram muy moment yu neex daal mm. mais vraiment daal ñu ngi ñaan yàlla loolu tamit comme ni ñu ko ñaan rek yàlla na yàlla def daal loolu waaw corona bi jóge parce que combat yoo xam ne li ci neex wii kilo neexu ci bu fi sësee rek ñu def ko wii kilo ah. neexu ci wallaay seen mu wàcc ah loolu benn affaire la <laughs> waaw voilà xibaare jaar fa ndar képp waaw di ñaan yàlla rek di sant yàlla bu baax a baax mais foofu ma tëjee sànq bi may def refi bi kooku ma wax muy bas fa bàyyi bas fa mi mhm. dëkk dëkk bi ñuy wax nga xam dafa réer mhm. su suñ côté dëkk yee la dëkk ñu di ay mbokk parce que ñoo bokk ay dëkk di ay mbokk dafa xaw nag am tuuti feebaru xel dafa réer pendant ñaari at nga ay mbokkam di ko wër kon képp ku ko gis ci image su Equivox TV yi rek mm-hmm. nga dimbali ñu ci wanal ñu ko ay mbokkam mm-hmm. xam nga parce que tamit loolu dinañ ko wala ñu contacté ma ci sama numéro mm-hmm. yaa ngi dégg waaw wala numéro bi nga xam ne moom moo nekk ci Equivox rek numéro commercial bi boo ci wootee rek après di nga ñu jot quoi ku ko gis di ci profité di nuyu waa Bawol yépp rawatina waa Ngema suma rakku yaay bi nekk foofu suma yaay Ndiolé Ngom maa ngi koy nuyu di nuyu ay doomam Pape ñaan suma mag bi nga xam moom laa dëkkal fii te muy taawam di nuyu famille bi yëpp ñoom Cheikh ñaan ak Coro tout le monde ak di nuyu sama waa kër nijaay waa Mbomboy tamit du ma leen fàtte mhm. waaw képp ku sant Ngom mhm. bëgg ceeb rek moo leen yàq maa ngi leen di <laughs> nuyu famille yi di leen ñaanal jàmm di ci nuyu nag sama soxna moom daal moo ci moo ci kiiwul quoi tenek maa ngi koy bëgg bu baax a baax voilà tenek ñu ngi lay nuyu comme paya soxee na si moom dañ lay mu ngi noonu daal Serigne Babacar <laughs> voilà mbokk téléspectateur de Equivox TV fi daal di yem ak yéen rek ci xibaaru làmb tey di leen jox dig daje ëllëg incha allah attention Jackson